ci dara duñu benn ci dara te bu arbitre sifflé li nga xam ne duñu benn ci dara non c'est le plus fort plus fort de tous les lutteurs ah. loolu yàlla def na ko c'est moi Balla Gaye 2 c'est moi Balla Gaye 2 je suis plus fort tous les lutteurs ah.

respecté sey am di jàmm waaye s'il te plaît waaye c'est qui respecté say supporters ñu lay ñaanal respecté ñi ngay àndal moo tax man toog di nelaw waruma lépp lu may def fulla ak fayda laa koy defee ak jom a ngor ndax damay kilifa yu topp sama ginnaaw damay ñaanal di sonn ci man man liggéey ba dee te li ma leen waxoon démb tey laay waxaat mbër dootuma yëpp ci Sénégal incha allah bu ma yàlla waaw waaw. maa ngi nuyu ko baax a baax maa ngi nuyu.

wax bi daanaka lépp jeex na ay at lañ doon wax ay weer ñaari weer ñetti weer benn weer ba moo semaine motatu sax semaine maa ngi koy ñaanal jàmm moom suma adversaire ak salaam di ko ñaanal moom ak famem di ñaanal suñu père Gaston yàlla dafa ko jàmm di ñaanal yaay booy ñaa jàmm il est important je l'aime beaucoup mère boobu yaayam. yaayam. waaw dafa ma neex. xam nga lu tax. lu tax dafa méngóog suma yaay. yaayam. yaayam. waaw dafa méngóog suma yaay. yaayam mosoo ko mu wax lu ñaaw. yaayam mosoo wax mu lu bon. dama ko bëgg j'aime beaucoup. te uh-huh. booy ñaam maa ngi koy waxal ne moom. Uh-huh. bu ko neexee. ku daan na seet yaayam te man dinaa seet yaayam incha waaw ku daan na seet yaayam ku daan na seet yaayam. ku daan na seet yaayam ndax man bëgg yaayam. Uh-huh. j'aime beaucoup. maa ngi sant suma yaay di ko gërëm ndax li may gis suma yaay rek laay gis yaayam. macha allah kon maa ngi ko ñaan benn question rek benn question. Lamine Lamine.